ci ndigalul Serigne Mountakha Mbacké Bachir xalifa général des Mourides yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ci ndigalul Serigne Mamor Mbacké Mourtada yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér daayira xidmatul xadim bi nekkee ci xale Caroline du Nord ca Amérique ñoo am yéene taxawal ab projet bu mag boo xam ne ab centre culturel islamique la boo xam ne day ànd ak barabu jàngookaay ngir xale yi nga xam ne ñoo juddee ci moomile réew mën di fa jàngee ñu leen fay tarbiya ak salle boo xam ne danañ fa amal mbooleem activité culturelle yi sportif ak ay dalluwaay ngir kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo fay ñëw ñu toll ci door liggéey bi daayira xidmatul xadim bu rale Caroline di noor ci Amérique di ci woo mbooleem jullit yi rawatina taalibe ñu ñëw ànd ak ñoom liggéey bi la. liggéey bi moom laal suuf nañ ko yëkkati bu loolu ñu yëkkati moom laal suuf ilaaw kalimatillahi ulya lool dong muy liggéey bi. nag dañ koo fas yéene yaatal di sàkku ku ne tàbbal ci saw ñaq ku ci bëgg a barkeelu mën nga ko ak ñoom ci numéro téléphone yi wala nga def ko ci numéro compte yi affiché. waa daayira xidmatul xadim rale Caroline du Nord ca Amérique ñooy ñaanal Serigne Mountakha Mbacké Bachir mu yàgg fi lool te ànd ak wér.